maintenant li si am ba am euh, baabu mbir mi contexte bi ñu nekk c'est trop chargé te y a de désinformation aussi te la presse relaie toute cette désinformation la xam nga perception dafa am doole si réew tey bu ñu nee benn maxtaar dégg nañ ni moom moo def lii nit ñi li ñu jàpp mooy def na ko ba pare ku nekk nag su ñun mais danga am njaboot da nga am tur danga am baay da nga am ndey da nga am sa sa sa tur bopp am sa image bopp boo xam ne que ni da nga ko war di ko sàmm foo toll. moo tax ma ni euh, euh, mënuñu rek toog li Adja doon wax ni dañuy judiciariser bu fekkente ni que ni tu prêtes le mais la justice am de mm-hmm. te nag boo jàkkaarloog nguur boo xam ne du la may dara. parce que ñoom foofu la ñu toll. mais Bougane il a parlé ba léegi tontu wuñ ko. lu xew dinaa dina dinaa di dinaa ñëw si si si loolu. bu Soumaré ak Bougane dafa mel na nga wax Champions League ak nawetaan duñ benn bu a été premier ministre bu ay été président de la commission de l'union euh, de l'UEMOA mais kii lu tax ñu ignoré ko non dinañ est-ce que dañu ko ignoré dinañ ñëw si loolu man pour man le gouvernement n'a pas ignoré ki nga xam ne que ni moom mooy Bougane en novembre dernier Mansour fay lii Bougane wax c'est pas une révélation Bougane naa rien révélé mm-hmm. Birame Souleye jóg bu PASTEF président de commission. interpellé na Mansour Faye à l'Assemblée nationale. ci marathon budgétaire bi Mansour tontu ko ci wolof wolof bu clair wax que ni que nii ak nii la ñu def bu ñu toppee procédure yi juin deux mille vingt trois la ñu jot xaalis bi mais puisque am na beneen yoon moo tax ñu jaare ji foofu mu dugg comité national la dette publique man mosuma ko dégg valider ko ak euh, office bi nga xam ne moom moo amee les marché publics loolu Mansour tontu na si maintenant Bougane def na benn yoon. defaat une deuxième fois waxaat une troisième fois. Mhm. ba mu jógee Daaru Musi euh, barki démb le 8 mars. mu ni man sax defar naa sama valise ba pare pourquoi ñuy porter plainte ak bi te duñ ma porter plainte nañ ma porter plainte pare naa pour dem fa nga xam ne moom mooy kaso ba. gis nga dama mës dégg le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye mu ni du ma dem ba nekk premier ministre di nangu ay policiers yu ndaw yoo xam ne en temps normal sax ñu ma xool les dans les yeux ma xool sama jaar-jaar xool sama dayoo xool fi ma toll may nangu may patam Adja kaso baaxul surtout si kilifa moom la PM doon wax léegi léegi ni dañu bëggoon toroxal Hadjibou mais Hadjibou a dormi dans quelles conditions bërki biig nga sol sa costume bu rafet dem tàmm yenn yi sa àdduna mosoo am yenn tolof tolof yi xëy benn jour ñu teg la ñëw tekki sa ceinture dindi sa ay euh, euh, lacet jël sa portable dugal ci benn mbuus teg amatoo droit booy waree sawi sax da ngay ñu ni que nii may leen ma ma dem si ban condition la Hadjibou nekkoon à bu ñu yàlla moo ñu dimbale. Mhm. ba mu dellu këram bu ñu ko jàlle woon si kaso ba tey lan la ñuy wax ñi fi toog di wax ñëpp dañ naan waaw nañ dem seeti ko euh, boo demee wut permis am na dafa foo xam ne boo fa tolloo ci àdduna yenn yi waru la.